Diallo Gorgor euh, Amadou Tidiane Seydi Miachou euh, Sey benn Zekri Saliou Sall Alioune Ndiaye ANG ñoo ngi koy nuyu Moustapha Dieng Ibrahima Sori Diawo Ndeye Khady Dieng Cheikh Carlos Ndiaye itam Diop Bamba Mor Lam Yakuba Diatara Paco Diop mbay Pen Junior euh, ak ñëpp ñi nga xamante ne waxtu wi ñu toll ñoo ngi bàyyi xel ñu ngi leen allo. allo oui. mbokk mi na ngeen def. waaw ah, ñu ngi fi. di la lu baax foo ñuy bàyyi xel. waaw ah, depuis Matam Sénégal. naka waa Matam. alhamdulilah. bismillah ci waxtaan wi. bon avant tout d'abord man li may ñaawlu mooy. Mhm. benn projet boo xam ne ça dure de un an quelque. Mhm. si ñaari citoyen mhm. mais euh, tey Ousmane Sonko citoyen Adji Sarr citoyen la. Mhm. mais nguur gi moom la la ciy def entre deux citoyens yoo xam ne mhm. dañoo problème. Mhm. procès politique mënut a weesu lii waaye léegi li ma ci gën a ñaawlu mooy. élèves yoo xam ne war a xëy jàngi jàngi wuñ. journalier boo xam ne moom bu xëyul ñabatam lekk mënut a liggéey. ci bét procès am na loo xam ne dafa ñaaw si réew mhm. su Sénégal suñ dirigeants yi nañ delloo seen xel si yàlla mhm. te xam ne lii nguur la nguur dafay jeex muy côté pouvoir bi di côté opposant bi yàq bi teru fi luñ fi mhm. yàq ñoo ko defar tey lu luñ fi mënta yàq mu Ousmane Sonko bu toogaat moo ko defaraat keneen ak keneen bu fi toogee moo ko defaraat Mhm. waaw. d'accord merci mais loo xam ne teguñu si yoon teguñu si dara yàq di def kenn mënul xam. d'accord merci merci merci merci euh, di ko di ko jaajëfal bu baax a baax fàttali leen nag ci waxtu bi ba léegi ñi nga xamante ne ñoo di àttekat yi ñoom la ñuy xaar ca tribunal euh, bu ndakaaru ngir ñi rek ñuy daal di joxe verdict bi nga xamante ne moom la askan wi yëpp di xaar jëmee ci euh, mbir yi Ousmane Sonko ak Adji Sarr daanaka depuis neuf heures nag saal ba fees na dell Ndeye Khady ak ñu mu àndal ñoo ngi ca biir avocat yi Ousmane Sonko ñoo ngi ca biir Adji saar moo ngi ca biir donc àttekat yi kese ba waxtu wi ñoom la ñuy xaar ngir ñi rek ñëw yeewi sénégalais yi sëñ bi na ngeen def. sant yàlla bu baax. yéen a ngi ci jàmm. waaye sant bi maa ngi wootee Côte d'Ivoire. fa ñu woowee. Côte d'Ivoire dama bëggoon participer ci waxtaan bi. aca bismillah. waaw ñu ngi rafetlu seen liggéey bu baax xam ne am. merci. wax ni. délibéré bi moom nii lu dul ñu soppal président Ousmane Sonko parce que en fait dama déglu sànq kuy participer mais fii moom ku wax feeñ ñun dañoo nëbbatu ñun ay patriote lan dañu xam tey question ko far moo tax mhm. ñuy wax naan dañu war a seetal président Ousmane Sonko parce que deux mille vingt et un ñu ngi suivre dossier bi ñu fi gën a jaar yëpp képp kuy sénégalais di suivre même boo xamul mbir lu gis ak yoon sax yow sa conscience mhm. dina la may que nga xalaat ne lii duñ koy tuumaal dara amul parce que nit ki mën deux mille vingt et Mhm. ngay wax ne am ngay preuve am ngay vidéo am ngay mais après bi nga ñëwee devant euh, le juge ay wax lii dama def lii donc mhm. kon nag tey li ñuy xaar mooy démission ñu ñaan Ousmane Sonko ñuy lu dossier bi dafa war a leer parce que dafa am ñu si ñàkk seen su dossier viol bi passé am na beneen dossier boo xam ne ñu si ñàkk dafa war a leer bokk ci complot bi yëpp ñu teg leen ci yoon. Mhm. parce que tamit wax dëgg yàlla mënoo yóbbu nit kilifa gu toll ni président a Sonko devant le tribunal et puis waxi ci am benn preuve loolu vraiment même président Ousmane Sonko ñëw ku ne xam na ne ñoom suñu am lay preuve trop dañ ko wane. Mhm. donc nag ku wax kay ñun dañu far. d'accord mais ki far dañ nëbbatu kooku la toog déglu bu mu wootee <laughs> d'accord d'accord merci merci merci merci merci di ko jaajëfal Saad Bou itam maa ngi lay jaajëfal moom nee na un dossier de crime sans preuve est facile à juger c'est c'est un juge indépendant xalifa Der maa ngi lay nuyu Fatoumata Gueye itam ak Khadim Dioum ñu jël mbokk mi nekk ci ligne bi salaamaaleykum allo. waaw allo. ñoo foo ñu woowee. waaw ah, dama koy lëf dama koy lëf quoi. ñoo ngi sant yàlla bu baax. yow foo ñuy woowee sëñ bi. alhamdulilah. waaw jégal ma ko de bëgg ma ko wax quoi. <laughs> amul problème amul problème jégal nañ la ko. waaw dama bëgg a participer ci émission bi. ayca bismillah yàgg naa woote mais <laughs> tey moom dama am chance quoi. Mhm. waaw situation euh, Sénégal moo moo moo tax daal ñu woote. Mhm. waaw parce que xam nga rek dañoo am ay njaboot Sénégal. Mhm. ba pare di xalaat situation bi parce que da ngay ragal quoi. Mhm. doo nelaw doo def dara. Mhm. lépp ci ay lépp ci ay kàcc nga jéggal ma ci kàddu bi quoi. d'accord waaw lii lii du yoon ñëpp xam ne ni ñi amuñu dossier amuñu dara kii suñ ko amoon bi yàgg tëj nañ ko dañu waxante dëgg. billahi war na yàlla suñu ñuy amoon benn vidéo bu leer saa waay buum bañ ko premier premier nii bu mu am ak policier yi mhm. jour boobu lañ koy tëj gars te loolu su amoon ñun ñun ñooy dem jàpp Sonko yóbbu ko billahi mais mun ñu am yaakaar ci kenn ah ñun jeunesse bi yëpp jeunesse yëpp am yaakaar ci kenn ñu bëgg tas suñu yaakaar boobu loolu tam duñ ko nangu quoi billahi d'accord wóor na yàlla loolu mënuñu ko nangu d'accord wóor na yàlla mënuñu ko nangu man instant damay wax ak xol bu tàng quoi lii lii bugguma sax mu may dal ñit ñi léegi ñu ngi may Macky mu ñuy def ay moos te xamu ko mhm. billahi Macky mu ñuy def ay moos te xamu ko ah déet waay billahi wóor na yàlla mu ñuy def ay moos te jeunes yëpp lay def ay moos te jeunes yëpp ay ay ñun dañoo am doole am kattan war mën a liggéey defar Sénégal mhm. wóor na yàlla fii ma nekk nii jamono ji police beneen ay oto yu rafet chaque année ñu ngi changé ay oto mhm. ñëpp ñu ngi avancé ngi koy defar te dafa da ngay gis sa xol bi jeex waa wër na yàlla. ci bébé yi judd sax dañu am chaque chaque weer salaire chaque weer da leen dugal ci état bi di fay wër na yàlla da di fay ñu leen di jox xaalis chaque weer chaque trois mois chaque deux te loolu lu tax mënuñu ko. fii Sénégal fii fii fii ma nekk nii amuñu pétrole amuñu gaz amuñu tout lépp lu ñu def ak des Afrique lañ ko jëlee. Afrique lañ koy jëlee loolu mooy lan li ñu waxante dëgg quoi. fii amul dara billahi sëñ bi fii amul pétrole amul gaz amul dara billahi amul dara mais mhm. mun munuñu munuñu ñoom seen seen vie seen futur yëpp am baax ñun ñun seen futur baaxul loolu may lan def nañ waxante dëgg ah doy na war def mais seen maam yi dañoo defoon seen ëllëg xalaat mhm. wax ñu fa dara du am tax di taggaate rek di taggaate rek loolu mooy lan suñu maam yooyu dañoo defoon suñu ëllëg ñun ah. Mhm. ñun sëñ si ay xale yu ndaw la ñun dañoo bëgg xeex pour suñu futur ñun pour suñu futur xale yi ñëw di fekk ci fekk fii lu baax. Mhm. mais ñun président ne loolu duñ du fi amee ñu war ñu xalaat suñu futur. Mhm. ñun suñuy toog suñuy lan la cee fekk président ne du du du fi amee yéen doole ko doole ko doo doole ko xalaat mais nañu waxee dëgg quoi sëñ bi. d'accord merci jooy quoi wur na yàlla. merci vraiment sa ça se sent ça se sent xam nañ ne xam nañ vraiment que ñu ci bari seen xool dafa jeex ci situation bi waaye itam euh, mbir moo demee ni ni mel rek euh, euh, far far moo metti ak bëgg nit moo metti gëm nit moo metti donc ñëpp ñi nga xamante ne ay jege ñaale lañ farandoo lañ soppe ci Ousmane Sonko jamono ji itam dañuy rek daal di comprendre li nga xam ne moo di seen réaction ñu xaar keneen ci 77 810 90 rek ñuy dem tribunal Ndakaaru xool lan moo fa bi salaamaaleykum allo. allo salaamaaleykum. mbokk mi dañu baal nga yokk kàddu gi ngi dégg-dégg gën a mën a neex. alo waaw salaamaaleykum. waaleykum salaam. sëñ bi ñu ngi ñoo ngi delloo ziar foo ñuy woowee. nga di woowee Mbour. naka waa Mbour géej. ñu ngi ñu ngi ñëpp a ngi sant. waa ñu ngi sant mhm. ci waxtaan wi. ah di kàddu rek affaire bi. Mhm. parce que fi ñu toll nii moom réew mi moom daanaka kenn nelawatul kenn yandoor mhm. ndax li fi xew te yaakaar naa ni nguur jarul muy opposant muy président taar réew mi ndawu réew géeñ élèves yi mënatu jàng mhm. kenn nelaw war na ñëw sóoraale lii tamit instant bii ni Sénégal buñ ko xamewul woon ci lañ nekk fu mu liñ daan gis ci yeneen réew yi ci la mhm. ci la pour man fi ñuy dund nii war nañ ko mën a ndax senegal bu ñuy tëj Afrique pays yi gën nekk démocrate ci la ci lañ leen di boole mhm. mais pour l'instant ci démocratie moom wàcc nañ zéro ku wax ñu tëj la liggéey ñi ma woo def dara lii ba kañ mhm. dañ sóoraale jeunesse instant bii nii jeunes yi ñeme nañ ba ndax manifestation yi xew li xew chaque jour. Mhm. chaque jour liy xew jeunes yi gën a ñeme homme de homme de tenue amul wala ci réew mi ndax lan. yoo mhm. xamante ne ñoo comprendre di merci merci beaucoup. merci merci euh, di ko di ko jaajëfal bu baax a baax sunu delluwee euh, fi nga xamante ni moo di euh, tribunal bu Ndakaaru foofu itam fàttali leen ñi nga xamante ni ñoom ñooy avocat wu ki nga xamante ni moo di Ousmane Sonko ku ci mel ni maître Ciré Clédor Ly ñoom Bamba Kassé ñëpp daanaka ñoo nga fa ci waxtu ñu toll Adji Sarr itam moom agsi na ca tribunal ba depuis jamonoy neuf heures Ndeye Khady Ndiaye ak ñagay laayul itam agsi nañ ca tribunal ba sànq rek ñi nga xam ne ñoo di àttekat yi ñoom kese yeewi eh, askan wi ci eh, ndogal li nga xamante ni moom la ñuy jël eh, jëmee ci mbir yi mbiri Ousmane Sonko ak Adji Sarr donc jamono ñuy toll nag euh, lépp euh, yemb na ngir ñi nga xamante ne ñoo di àttekat yi mën na rek daal di euh, joxe seen verdict ci diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr jamono ji nag daanaka fit yëpp ak xel yëpp dalagul ndax xam nañ li nga xamante ne moo mën a xew su dee li nga xamante ñenn ci ay farandoo Ousmane Sonko bugguñu mu am moo am salaamaaleykum. waaleykum mbokk mi na ngeen def. ñu sant a ngi doxal. waaw ñu ngi doxal ñu ngi doxal. ayca bismillah ci waxtaan wi. ah lu mën a xew daal. Hmm. ñu ngi ñaan jàmm. amin amin jàmm daal ci lépp xaj. Hmm. lépp li nga xamante ne réew mi mën jàmm mën na am. Hmm. loolu daal yàlla na xew tey bu soobee yàlla. waaw na réew bu tàkkee kenn muccul. yow mi toog sa ah yow mi génn ci mbedd mi daanaka yéen a bokk yam. waaw yàlla na jàmm. amin amin ok jërëjëf. amin merci merci merci ñoo ngi koy jaajëfal di xaar yeneen réaction ci 77 810 90 90 am na ko moom message naan ma Jérôme j'étais sans stress je suis pas stressé kat bon je suis stressé parce que euh, Sénégal vraiment bëgguñu dara nag taal ko bëgguñu euh, dara loo xamante ne tey suñu ko defee wala wax ko réew mi daanaka ñu bari du ñu nekk ci jàmm manifeste di fi am vraiment ñun jàmm lañu xam te ci jàmm la ñuy dox jàmm la ñuy wax donc lépp li nga xamante ne day yee fitna bugguñu ko ci biir réew mi moo xam euh, ndogal la moo xam euh, fee la en tout cas ñun daal jàmm rek la ñu jàmm ak salaam la ñu bëgg ci réew mi réew mi mën a soqali dem ci kanam voilà donc euh, BAD itam maa ngi lay di la jaajëfal baax baax di xaar keneen ci 77 810 90 90 salaamaaleykum. maaleykum salaam. mbokk mi na ngeen def. ñoo fi rek. foo ñuy woowee. Rufisque. naka waa Rufisque. ça va ñuy. ba ñëpp ngi sant yàlla foofa. ah macha allah alhamdulilah. ca bismillah ci waxtaan wi. ah man de li mën a intervenir mooy ci yi. Mhm. waaw mooy ñi demoon palais. Mhm. parce que président Macky Sall bu bëggee dialogue. Mhm. jeunesse bi la rawoo. parce que bu ñu nee ab réew. ay ndaw ñoo tax ñuy wax. waaye nekkul mag ñoo xam ne seen àdduna jeex na. la ñu dund dootuñu ko dundaat. Mm-hmm. mu bëgg def ak ñoom dialogue ki nga xam ne mooy le président de la république mm-hmm. moom moo boote ñëpp mm-hmm. tey jii nii jàmm bu ame ci réew mi moom la fi jàmm ñàkkee moom la parce que tey man xamoon naa ne Sénégal ñu dañoo bëri ay caaxaan te caaxaan gi yëpp ay waxi foo mbaal ma si terme bi maanaam mooy taat ñu dañoo ñeme lool Mm-hmm. donc dossier bii nii nii nii gàcce la si Sénégalais. Mm-hmm. parce que tey mënoon nañu wax leen lu gën am solo mais pas dossier bu teer à terre à mm-hmm. terre donc li ñu ñaan président de la république na jël yu bëri xam na ne moom ko li def si ndoxu sedd bi ñëpp mën a nekk si jàmm ñun loolu la ñuy ñaan Sénégal moom la ñaan d'accord merci merci di ko nuyu di ko jaajëfal di xaar yeneen réaction ci 77 810 90 90 di jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ne waxtu wi ñu toll ñoo ngi ñuy bàyyi xel di xaar xibaar yi nga xamante ne ñoo fay euh, daa di euh, jógee fàttali ci waxtu wi ñu toll nag daanaka lépp yemb na ngir ñi nga xamante ne ñoom ñooy euh, àttekat yi ñu mën a dugg ci salle 4 bu tribunal bu Ndakaaru ngir rek joxe seen délibéré par rapport ak procès bi nga xamante ne mooy dox ci diggante Ousmane Sonko ak Adji Sarr salaamaaleykum waaleykum salaam wa rahmatulah. mbokk mi na ngeen bu baax baax. foo ñuy woowee. maa ngi leen di woowee. côté Kaolack. Kaolack. waaw Kaolack la daal. naka waa Kaolack. digganteem ak Kaolack. mbaa ñëpp ngi doxal foofa. alhamdulilah man. am na solo bisimilah ci wi. waa suñ bi de xam nga Sénégal daal réew ah te mbir mi. sëñ bi doo baal nga yokk kàddu gi tuuti. ma damay. te fi mu waaw Régis doo ma baal euh, ngeen yokkal ma kàddu gi parce que là je l'entends mal quand euh, gi dafa. waaw trop. allo Sénégal réewum jàpp. te fi mu ne nii mbir mi loxo. te bu nga xoolee Dakar rek yéen a ko. ñun ñu nekk ci àll xam fi réew waaw je pense que Régis kooku euh, su ta mën na woote waat ndax jamono ji nag euh, li muy euh, li muy wax yépp dafa xaw a dafa xaw a suufee xaw ma ndax dafa am ay jafe-jafe ci wàllum réseau téléphonique bi xaw ma ndax fi mu nekk moo moo moo rokkee waaye euh, katay kay ni maa lay nuyu El Hadj Cissé yaa ak euh, Khady Wele Alpha Diallo ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ngi seetaan Binta Sarr jaxate euh, ma fàttewuma la maa lay nuyu di la ziar salaamaaleykum allo allo waaw kooku nag dafa mel ni moom ay ay la la la la taal salaamaaleykum waaw kooku dem na di ko jaajëfal di jaajëfal ñëpp ñi nga xamante ne ñoo ngi ñuy bàyyi xel fàttali leen waxtu ñu toll ñoo ngi ca tribunal di xaar lépp la fay tokkee comme information ginaaw bi nga xamante ne àttekat yi daanaka ñoom rek lañ doon xaar ngir ñu dugg ca saal ba euh, daal di euh, yeewi sénégalais yi ci euh, ndogal li nga xamante ne moom la ñuy jël diggante Ousmane Sonko ak aji saar ginnaaw bi nga xamante ne moom soxna si tuumal na ko wàllum siif ak yàkkataanoo ak itam xupp ci wàllum rey salaamaaleykum mbokk mi na ngeen waaw sant a ngi ndoxal mbaa. waaw. naka yi. sant yàlla waaw. Ah, bi dañu baal nga yokk kàddu gi. waaw. voilà donc euh, képp koo xamante ne aussi da ngay woote ngir bokk ci waxtaan nañ lañ naan rek su nekkee da nga takk ay casque wala ay airport nga daal di koy tekki wala nga dindi sax mode haut-parleur bi ngay def ngir rek dégg-dégg bi euh, gën a mën a yemb ni mu leen ko waxee ni ki sàng nag xel yeeg xol yëpp ñoo ngi ca tribunal euh, bu Ndakaaru ngir àtte bi nga xamante ne jamono ji li mu mën a yee ci senegal ñëpp xam nañ ni li mu doon ba léegi di xaar ndogal li n xamante ne àttekat yi daañu ko jël salaamaaleykum. waaleykum salaam. mbokk na ñu ngi lay dolli ziar bu baax. Cheikh ça va. allah. Euh, fa ñu woowee. ñu ngi lay woowee ci waxantu Jabel FM. Mhm, bisimilah ci waxtaan wi. ah waaw euh, ci a wax rek mooy mhm. suñu examen yëpp dañ ko rapporté. Mhm. ñoo ngi nii taxaw kenn xamul ci lan lañ nekk ngir lan projet bi nekk mhm. tuñ ci yëpp mhm. xam ne carrément ay jàpp teg mhm. en tout cas lépp nag ñu ndax moo nekk président de la ko neexoon bi ne lii na ci tey tey tey tey dañ tey Mm-hmm. mais nag bu fekkee ne dafa bëgg dëggantaante bopp ci biir pour mm-hmm. loolu moom lañ si am merci merci merci ñoo ngi leen di ñoo ngi koy jaajëfal moom di euh, nuyu ñëpp ñi nga xamante ni ci waxtu wi ñu toll ñoo ngi ñoo ngi euh, bàyyi xel di nuyu ku ci mel ni euh, Sidi Ahmed Matar Diouf Benzema Mar ñoo ngi koy ñoo ngi koy nuyu di ko di ko jaajëfal Serigne Sow itam Sat Bulli Safiyetu Jéeme Katakayni Mati Kunta ak Beya Khady Wele Alpha Diallo